kii nga xamante ne mooy euh, mami Cobra. Mhm. Euh, àdduna ci coowal euh, Mame Ndiaye Savon ak Maman Vulgaire. voilà muy coow loo xamante ne mi ngi mi ngi bëgg a yàgg aussi diggante Mame Ndiaye Savon ak ki nga xam ne moom mooy. Uh, maman vulgaire mi nga xam ne no juboo woon nañ fi ay jamono ginnaaw bi ñu amee woon ay jafe-jafe fii uh, ba ci diggante bi nag la Mame Ndiaye bokkoon benn uh, concours togg boo xamante ne mhm. waa 2STV ñoom ñoo ko amoon à l'occasion de l'anniversaire de la 2STV donc ñoom ñëpp ñu bokkoon ci concours boobu te noonu la ñu amee woon ay jafe-jafe seen diggante ginnaaw euh, mami euh, maman vulgaire bi mu jugee ci mam Ndiaye Savon dem ci di def yëfi boppam quand même ba ñu baree bari daal di ñaawlu seen diggante na mu demee woon ca noonee la ay coow lu bare bari dox seen diggante ba maman vulgaire daal di ànd ak ay sabar quand même fi géwél mm-hmm. fekk Mame Ndiaye Savon fi mu nekk foofu ci 2STV bi daal di indi jàmm seen diggante mm-hmm. Sénégal yu bare bari rafetul loole ci noonee la ñu amee woon jàmm seen diggante ba commencé di di di di di meloon comme ni ñu meloon même bu fekkee ne kenn ku ne yaa sa place su bopp ci noonee la ñu demee ba benn moment. Euh, mawa vulgaire euh, mu nekk ci ay mbiru boppam euh, ba ba ba ay jamono jëmi jamono ñu gis ni que jafe-jafe amaan na seen diggante bi loolu amee nag ginnaaw bi ñu toppee ak rumeur yeeg ni ci mbir yi di demee ñu ngi xam ne ni que peut-être moom mam Ndiaye Savon bi mu génnee xam nañ ne xam nañ ne nit moom moo ñëw wax ko dara ci ki nga xam ne moom mooy maman vulgaire comme quoi que ne peut-être daf ko doon toogee ginnaaw bi nattu di million bi jógee woon euh, bi ngay bokk natt wax nga ma ko bi ngay teegi waxoo ma ko ay mbir yoo xamante ne quand amoon na ci seen diggante ba ñu jàpp ni que moom moo indi wax ji ñu bëri jàpp aussi moom Mame Ndiaye Savon nit moo ñëw ci moom wax ko benn mbir ci ki nga xam ne rek moom mooy maman vulgaire moom mu daal di jàpp diggante jamono gi neexatul ci noonee nag euh, la Mame Ndiaye Savon génne woon def ay révélation ba Sénégal yi bëri daloon ci kawam di ko xamal ni que bon peut-être dafa soxor parce que dañoo jàpp ni que li xale bi jëlee yoonu boppam wala boog ni mu avancé moom moo ko neexul ba ñu bëree bari en tout cas ci commentaire di xam ne ni que moom Mame Ndiaye bu fekkee ne dafa nekk nekk ak nit bu demee ba jël yoonu boppam bëgg a avancé moom loolee di ko neex ba euh, ci noonee sax dañu jàpp ni que nattu 10 boobee nga xam ne ki nga xam ne moom mooy moment vulgaire dafa teggi daf ko métti loolee quand muy ay mbir yoo xamante ne juróon na ay jafe-jafe yu bëree bëri seen diggante ba jamono gi ñu daal di ci diggante bi la maman vulgaire doon doon amee boroom kër te ki ko takk sax ñoom ñaar ñëpp ci palaasu Mame Ndiaye Savon lañ nekkoon euh, muy cag-cagu Mame Ndiaye euh, Savon ba jamono gi alxayri dox na seen diggante ba ñoom ñaan ñuy woyoo ci turu monsieur et madame euh, ci noonee nag la Mamy Cobra demuloon moom ci xew ba waaye taaloon na demulaay fam di xam ne ni que Mame Ndiaye Savon kenn waru ko woon jiitu ci xew boobee ndax euh, lu ko war a du lenn lu dul ni mu mel ak ki nga xam ne moom mooy euh, Mame Ndiaye euh, maman vulgaire mm-hmm. ak ni mu ko taxawee woon te ba muy metti dëgg dëgg dëgg maman vulgaire moom moo taxawoon di xuloole Mame Ndiaye di ko support ci lu bare bari ci noonee nag la xamal ni que actuellement moom Mame sabon tolloon na fi ay jamono yoo xamante ne ñu bëri ba dañ ko bàyyi woon mu tolloon ci ay jafe-jafe mais ñi ñuy tudd actuellement ci TikTok bi moo xam muy Zo euh, Balde di Zal Mbaye di ki nga xam ne moom mooy euh, maman vulgaire ñooñu ak ñoom aw ama ñoo nekkoon di ko xeexle di ko dimbale bu baax a baax ba yëgatuloon dara ci ay jafe-jafe ba jamono gi gis nañ ne que ñoom ñoo ñëpp actuellement moom ak ñoom neexawuñ kon na dem jëli leen nekkaat ak ñoom ci jàmm parce que loolu moom mooy li mais mbir mi nag. Euh, ba ko Mamy Cobra waxee nag am na ay interprétation yu bëree bëri ci ñu bëri def parce que jàpp nañ ni que moom mi nga xam ne mooy mami Cobra donc bu fekkee ne defar rek moom moo ko tax a jóg waroon na mën a taal otom quand même jugee ba dakaar quand ñëw euh, seet si Mame Ndiaye Savon ak Mamy Cobra même s'il faut mu def fi une journée quand pour dox ci ñoom ñaar seen diggante mu dox ko ba jàmm ñëw seen diggante mais ci internet quand même wala boog taal sa live di wax nii loolu defarul defarul defarul euh, benn problème ñu bëri jàpp ne quand même la muy quand ay mbir yoo xam ne démb la ko def aussi ñu bëri jàpp ni waroon na mun a taal otom aussi ñëw seen diggante defar ko muy quand ay mbir yoo xamante ne abi ñu gis ni que jaaykatu diw yi aussi donc téye nañu Sénégal quand même mm-hmm. moom nañ ñu parce que dañuy gis ni que ci TikTok yi ñuy def ak wax yi ñuy wax ci la ñuy defee ay réglement de compte yoo xamante ne mm-hmm. waroon na ko mën a mën a mën a jar man personnellement sama analyse bu bopp laa am sama xalaat mais nag souvent même personne bi da dégg Mame Ndiaye Savon Ndeya Beauté waaw Mame Ndiaye Savon mm-hmm. Oulita waaw Mame Ndiaye Savon Mama Vulgaire ah ku ñu ñëpp tuf li tamit bu yàlla voilà muy muy mbir moo xam te ne man personnellement boog man ci sama mm. xalaatu bopp dama ci am mooy que ni suñ borom moo moo dogal ànd. moo mhm. dogal tàkkalikoo mhm. tey képp ku fi gis ba ci Mame Ndiaye Savon tey mi ngi lay xamal ni que tey dafa amoon benn ñag boo xam ne moom moo ko jàngal defar diw. Mhm. te kooku góor kon xam moom moom dawitit mi ngi mi ngi xam ne ni que moom am na fi mu jaaroon képp koo gis li nga war a mën a am ak li nga mën a xam suñ borom tëbul tëb rek mu wàcc ci kaw suuf di ñu ko jox maanaam tey moom tey ci kooku la jaar moom moo def ci moom xam-xam bi mu def ci moom tey amaana tey maman vulgaire également ay xarit la ñu woon mu tolloon ci ay jafe-jafe defoon fi émission di xam que tolloon na ay jafe-jafe mm-hmm. bon amoon ay seex quand même mu désespéré woon donc mu amoon na euh, boroom kër boo xam ci sëy la ko amee woon borom kër mu abandonné ko mu amoon ay seex waroon am ay ngénte waroon xam ni que moom dafa waroon tudd deret Mame Ndiaye Savon kese la gisoon mm-hmm. donc cela veut dire que ne tey moom tey ci moom moom moom Mame Ndiaye mama ci moom la waroon mën a jaar tey parce que suñu borom moom moo dogal euh, euh, loolu donc tey dem nañ ba benn moment seen diggante jeex na moom mama vulgaire mi ngi ci place am tey am na ñeneen ñoo xamante ne aussi ñu ngi ci moom bu ëllëgee ñoom tamit dañ fay jógee dem ci keneen donc nañ bàyyi bu jafe-jafe amee ñu naan diw moo taal kii wala kii ci kii la jaar kenn ku ci nekk am nga foo jaar maintenant lii wax ji mooy bu suñ borom dogalee diggante ay ànd am da ngeen ànd par force bu ngeen nee ba mënul too leen ànd kenn ku ci nekk da ngay dem jël sa yëfi bopp. Mm-hmm. mais liy wax ji mooy tey kenn ku ci ne da taal sa live di wax ay wax yoo xamante ne di yëngal dëkk bi wala di wax ay wax yoo xamante ne on peut même dire que ni mënoon a ñàkk. Mm-hmm. suñ borom moom moo yore wërsëg. yaa ngi dégg te ñii di wax nii képp ko wax na mën nga jubóole taalal sa oto nga dem seen diggante nga wax ci diggante ñaari sœur yi ñu am seen jàmm. bu ñu demee ba mënuñoo mënuñoo mënuñoo juboo nag. Lonko neex na mais koo bàyyi mu dem ak mbagam kenn ku ci mm-hmm. ne nga nekk ci sa jàmm après kenn ku ci nekk nga am jàmm beneen bi aussi ñu bàyyi kenn ku ci ne taal sa live mm-hmm. ay pic sa morom mm-hmm. tey suñ borom moom moo sàkk ku ne kenn ku ci nekk tey boo jàkkaarloon sa seetu tey nga xool sa bopp amaana di nga gis sa bopp ci loo xamante ne doo ko xasee sa morom mi ngi noonu donc na kenn ku ci ne dund sa dund donc ñu ñaanal leen jàmm ñoom ñaar bu fekkee ne ànd bi ñu war a àndaat moo gën ci ñoom suñ borom defal leen ko ñu ne ci jaamu bu mm. fekkee aussi lii moom moo gën kenn ku ne nga nekk sa coin nga liggéey sa liggéey loo am nga yóbbul yóbbu yóbbu sa kër mm-hmm. voilà euh,